baal baat bi tuuti. salaamaaleykum euh, <laughs> maa ngi leen di kontaane waat bu baax a baax a baax euh, Abdoulaye Diop euh, Yacine Pouy ak internautes yeeg auditeurs yëpp maa ngi leen di béggee bienvenue encore une fois seen journal des faits divers xalaas biir RFM 94.0 Ndiaye maa ngi lay ziar lu bëree bëri. delloo la ziar bu baax Ababacar am mbégte gisaat la. yaakaaroon na ngaa bàyyi te yëguñu ko. non man ci damay xëy di bàyyi rek Ndiaye. <laughs> Ndiaye sama tànk bi ron ñetti waay. noonu la cat la. waay la cat la fi nga xam ne maa yow li ñu bokk a bari mooy sa tànk daa metti wéer sama ginnaaw jël. yow mi waaw. Oh. Ndiaye kon nañu ñaanante jàmm de. Ah. mooy suñu paa bi la waaw suñu paa bi la. <laughs> nuyu naa la nuyu naa Paas maa ngi nuyu waa Sénégal bu baax. jaajëf Fass. jaajëf Faye l'homme fort de Yëmbal et de l'autre côté là l'homme fort de Ngaabu mag lay nuyu di la bu baax. di nuyu auditeurs yi di ziar internet di nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom Ndiaye l'homme fort. ayca ñu dem Ndiaye ca la euh, li partenaires yi wax. di leen gërëm rek di leen sant ñoom partenaires yi di leen jottali également ngërëmu Sénégal partenaires yi ñuy gunge ci xalaas tàmbale ak Optique Vision Plus Sénégal di fàttali gaañi ne tabaski gi li ci des ay fan yu néew la jamono ji promotion bu mag a mag moo ci boutique Optique Vision ci réew mi yëpp bu ngeen ñëwee fii ci Dakar ci showroom bi nekkoon ci VDN bi dend ak hypermarché exclusive promo bu euh, dem ba ci cinquante pour cent mi ngi leen fay xaar ci lunette bu ngeen fa jënd cadre lunette wala accessoire lunette wàññuy am doole ñoo fa am que boutique optique vision plus am na Kër Mbay Fall ngir ji dëkkee ci banlieue bi ca Touba dëkk bu sell ba def nañ fa boutique optique vision plus Sénégal fi nga xam ne moo di Louga Saint-Louis ak Thiès fu ngeen fa dem da ngeen fa fekk boutique gi optique vision plus Sénégal li leen di taxawu ci lépp lu jëm ci wàllu lunette ay lunettes yu garantie lunettes yu original ay lunettes yu rafet yomb teg métier partenaire beneen bu ñu gunge ci xalaas mooy établissement waa kër Serigne Touba Frère les champions du pays les champions de l'économie ñoom ñi indi gàmm bu baax bi nga xam ne moo di gàmmu vite fait vite fait di gàmmu complète gàmm buy neexal seen bien-être lu ngeen soxla ci gàmmu vite fait bu ngeen demee ci boutique yi am ko wala ngeen dem ci marché yi nekk ci réew mi wala sax ngeen woo ñoom établissement waa kër Serigne Touba Frère ci wala baax ñu waxtaan it euh, beneen partenaire bi nga xamante ne ji moom moo di euh, Infinix euh, Infinix di partenaire ci xalaas ñu leen di remercier bu baax a baax mais également Jili CSB Jili CSB ak promotion spéciale tabaski promotion bu mag a mag bu baax a baax bu neex a neex bu mu indi waa Sénégal di leen ci gunge CSB Colobane wala CSB VIP shop Parcelles Assainies wala CSB bi nekk ci rond-point kër góor gi lu ngeen fa jënd ci téléphone techno yi xam leen dañ leen di offre offrir cadeau bu mag mag mais également ticket tombola boo xam ne fii ba tabaski di mën a gañ xaru tabaski jeesneer ak yeneen i loo yu leen di xaar képp koo xamante ne ji bëgg nga ko bëgg ci ay leeral yu gën a yaatu ci euh, CSB promotion bu am solo bi moo di ci tabaski bi mën ngeen a dem ci www.csb.sn wala ngeen woo leen ci 33 jeexale ak euh, bijouterie La Rotonde di partenaire u réew mi partenaire bi gën ci jigéen ñi partenaire bi baax ci ay cadeau partenaire yi bi nga xamante ne ji boo bëggee ay takkaay yu baax ay euh, takkaay yu rafet yu tendance yu fashion da ngay dem bijouterie La Rotonde bijouterie La Rotonde rue Amadou Assane Ndoye immeuble La La Rotonde ci rez de bi fa la ñu nekk arrivage bu bees tax nag la ñu indi bëgg ko gunge waa Sénégal ci tabaski gi ci ay njëkk yu yomb loolu la bijouterie La Rotonde def yamuñu fa Ababacar pass bijouterie La roton dañu def lu ama am solo loo xamante ne ji euh, nee nañu ci xalaas la lañ koy lañ koy lañ koy jaarale lii ngay gis ni Euh, fukki enveloppe la yoo xamante ne ji bu ci nekk bijouterie La Rotonde moo ko jàppalee waa Sénégal ci tabaski gi nee na nga xool ñi nga xamante ne ji am na nañu yéene euh, bëgg tabaski te seen loxo jotul seen ginnaaw ku ci nekk nga jox ko benn enveloppe di leen gërëm bu baax ñoom waa bijouterie La Rotonde fukki enveloppe yoo xam ne bu ci nekk xaru tabaski lañ ci def seetal ñoo ko jox comme ça nga xam ne kon ñoom waa bijouterie La Rotonde ñoo ko jàppalee waa Sénégal ci ci ci ci ci tabaski gi donc euh, ñaan yàlla yokk leen doole leen seen numéro téléphone di 77 348 96 96 33 842 65 95 70 639 60 60 di leen remercier bu baax a baax ñoom waa bijouterie La Rotonde naka noonu it euh, yi nga xam ne ñoo ñuy gunge ci xalaas. ci am na solo di dañ koy xaar ci ay partenaires. Mhm. surtout boo nekkee cim réew moo xam dafa xaw a métti. Mhm. événement yi toll nii euh, bu ñëwee dafay baax. ci wolof ni mu wax ni koo xamul ni nga koy def. nam la def moom moo tax baay bàyyiwaat xel ci askan wi c'est très important. waa bijouterie euh, La Roten sant nañ leen gërëm nañu leen bu baax sant yeneen partenaires yi nga xam ne tamit ñu ngi ànd ak ñoom ci kóolute gi confiance gi. Hmm. nañu doxal parce que xalaas bi sama appel lañ dégg Ndiaye. Hmm. fukki enveloppe <laughs> dinaa ko séddale fukki nit. Hmm. ñoo xam te ni yeeyoo nañ ko. bu soobee yàlla. Mhm. Ndiaye. du ko dem nag dugg seen kër jox ko say mbokk ak say. yooyu rajo bi maanaam fii ma taxaw nii. ah leer na moom su ma génnee ci rajo bi léegi mu jeex. jërëjëf waaw ah, kay waaw loolu moom ah, Abdoulaye la woo bari la moom euh, ci ñi sonn ñu la bokk ak yooyu mu ngi liggéey am na salaire ak yooyu yëpp. pour auditeur Aliou Ba waxi noppi. Yacine Pouy deful lu dul pose ongle ak pose greffage yooyu bu ko jox benn xale bu jigéen. bu dee ku jigéen la sax nga jox ko. Ndiaye. Uh-huh. am nga fi mbuusu mburaake. mburaake. Abba am nga fi mbuusu mburaake man am naa fi mbuusu mburaake Muraake waaw Muraake waaw fu mu jógee nag Muraake Muraake la suñu benn jigéen bu dëkk fël ci géej mhm. may jong ñu koy wax bàjjan may moom moo defar Muraake yi yónnee ñu ci daanaka yónnee nañu si waaye bi yëpp ndeysaan waaw euh, ñu koy gërëm bu baax a baax tey ndékk naa tey suba waaye Muraake bi Njaay ah. Muraake benn affaire la macha allah ah, waaw waaw waaw Muraake ban xeetu ndékk nga ji mën a am Muraake saa boo ko defee def ci meew hmm. abaay foo ne am dara la dara lu bari in ma foo bari waaye day sekk de. ah in noonu. Ah, boo ko de. <laughs> boo ko day sekk de. gis naa sama benn xarit boo xam ni day xam nga laajte yi boo koy lekk da koy xooj ba mu sekki. te soo ko lekk da lekk te toogul xaar ba mu sekki. Eh. laay ñuy dem terrain di jouer match ndakate laajte bi say ma sekki Ndiaye day waxtaan ak a jaaga. <laughs> man yow la ngeen waxtaan ba ci <laughs> fu ne la laajte bi fu ne la laajte bi doon génn day kii rek. <laughs> donc moo tax da ngay tey rek ñii da ngay def ndànk rek. lu mën a xew rek rek lañ ma doon nettali histoire bu doy waar. Mhm. benn paa moo takk ñaareel. xamul lu mu ko xee aaw bi mu seet def délégation yónni paa yi pour ñu dem ci maire bi maire bi yëg na ko. Mhm. mais problème am mooy day xaar kan moom fi tu ñu wax si ko. ñu wax ko. bi paa yi ñëwee dugg si maire bi yónni doom ji jox ma gaz beeg pol bi. paa toog di jàmma sante mais bi taal gaz bi teg ndox mi muy bax rek. te amul dara luñ ci def. <laughs> bu baxee ba bax mu sotti tegaat paa yi jàmm sante rek. non dañ laa seet si woon danañ koy wax dañ fee jaaroon rek ah dañuy ñibbi kay kenn du jël yooyu risque. mooy comme lacciri bii ngay wax. jël yooyu risque am na yoo ne moom situation. da ngay observé si waaw oui. Ndiaye naa la histoire. gaz bi maire bi ci salle bi la ko takku ñaareel Ndiaye wax naa la histoire takku ñaareel kenn mësul jël ay responsabilités dem ci soxnaam ne ko. dama takku ñaareel dañ ma ko may rek. may nañ ma ñaareel rek ngay dégg ñaareel kenn mësu ko takkal boppam boo nañ jëm. Euh, Aba. Ndiaye soo ma ko mayee. xalaas gii ni tey di jàll sax dinaa dinaa copp ci enveloppe bi jox ko borom xalaas bi di jàll tey. ndeysaan. Ndiaye. Mhm. réew mi de ndekete sa waay ku wax lii wax la ci ndaw si. Mhm. da doon sëy ak borom këram ñu tàqali ko. bi mhm. ñu tàqali léegi war na toll ci trois ans. bàyyi ko ñaari doom. léegi dafa am histoire ci biir histoire bi muy nettali yeneen histoire yu ciy feeñ ci dundam ci dundam ba egsi fi tey benn élément bi danga mooy jaar. histoire boobu. waaw parce que dafa dem mënutu yor mënul yor ay doomam mënul liggéey lu tax mënul liggéey amul këyit bi mu juddoo. Hmm. amul amul extrait amul carte jàngul. te ci réew mi la juddoo. fii waaw nee na papaam ko ci yaay ji la yaay ji nee ko ci sa ci la. fu mu dem pour wut liggéeyu jànq sax ñu laaj ko photocopie quarante. amul. fan la mujjee basculé di jaay boppam. Hmm? di jaay boppam jaay boppam dugal leen ci alxuraan di jaay boppam di si jënd ay téere alxuraan ba commencé ci am problème ñu teg ko ci dil jàpp bàyyi mu ne damay bàyyi jaay bopp dem lijjanti samay këyit fu mu jaar pour lijjanti këyit ya maire bi mu dem. Hmm. kaka fa war a lijjanti dina fexe ba tëddee ko bien xam ne lii mun koo lijjanti mais dina ko dig tëddee ko ba mu sonn mu bàyyi ko mu dem amul benn issue bu mu mën a génn. c'est sa papa doom su ma gisee tey mun naa toog un an du ma gisaat. te moo gisee cinq mille lay jox la mu yaram histoire bi dafa bëri ay histoire ci biir mm. histoire Ndiaye. ak yeneen yu bizarre yu ne ci biir maanaam dafa gudd dama lay bàyyi ngay déglu benn par benn. ay ca déglu. li ngeen di wax ci caga ji jaay seen bopp am pagaay man damay jaay sama bopp ngir ma mën a lekk maak samay doom ndax dama doon sëy tàggoo yor sama ñaari doom nekkoon suñu kër sonn fa nag ñu xatal ma trop trop trop xatal ma sonal ma maak samay doom aw ma ñëw luyee nekk ba ma luyee nekk nag am na damaa nekkoon sama kër xarit day sëy mais xamaluma loolu su ma guddee ñu am ma ma sama bopp am sama junni ñëw teg wala ma am sama ñaari junni léeg-léeg nga nu ñu jox la ñaari junni may la weeteel ma di ko dajale di ko ba dajale di ko nattee di ko nattee bañ tegal ma natt ma dem luyee nekk ma teggale nag fanweeri junni ma dem luyee néeg ma luyee néeg nag nekk ci doom nekk ci maag samay doom nekk ci maag samay doom léegi nag damay bëgg liggéey ma kayitu juddu mënuma liggéey su ma amoon kayitu a liggéey soo yoree ñaari doom amoo ko ko dénk amoo ko leen jox yaa leen di yor nooy liggéeyee te dëkk bi boo amul carte d'identité doo liggéey soo amul kayitu juddu doo liggéey kenn du la wóolu te aw ma kenn ku ma garanti ki nga xam ne war naa mën a liggéey bàyyi li may def ndax damay jaay sama bopp du dundal samay doom mu doon nag lu ma naqari su ma sañoon du yàgg ma bàyyi ko bëggatuma cee yàgg ndax li may def neexuma ndax tey sama doom yi dinañ dem ba dañuy comprendre ndax su ma amee kër dama naa leen dem leen ci mbedd ma wala ma yónni leen fu xaw a sori kenn ki jàpp loxo rakk ji daal di ànd ak moom dem ma profitoo def lu may def ndax ñu am lu lekk ak lu fayee lu yaas léegi nag depuis deux ans maa ngi ci li ma bëgg nag bàyyi ko balaa moo gën a ronde ci man bëgg naa ko bàyyi trop waaye bëgg naa ku ma dimbali ma bàyyi ko dimbali bi nag man mun naa ko bàyyi sama bopp te du am benn conséquence parce que xam naa su ma koy def damay gëmm wala ma am lu ma naqari rawatina bu sama na trop damay jënd añ damay jënd reer damay a fay luyaas fay ma bi bu ma amee ay client dama koy def yónni leen fu sori xale yi dem ma ko def bu fekkee guddi gi la ma yeetal leen ba ñu nalaw ma def samay invite ñi ñëw ma invité leen ñi ma dajale su xëyee jënd sama ndékki ak samay añ ak samay kii di dajale def sama compte pour may mën di weer bi dee ma mën a fay luyaas loolu nag bëgg naa ci génn trop trop trop trop balaa moo gën a yàgg ci man may dem ba ronde ci bëgg naa nag ku ma dimbale te yàlla rek tax ku ma dimbale te yàlla tax laa bëgg ma bàyyi ko balaa mu cee gën a yàgg parce que dem na ba sama doom yi léegi dañuy comprendre defuñu barki ma nag trop depuis mënuma ci dara ndax su ma ko deful du ma lekk mag sama doom du ma fay lu yaas moo tax ma di ko def waaye su ma sañoon ma génn ci su ma amoon nag lu ma jàpp ku ma dimbali nag laa bëgg su ma amee lu ma jaay sax ma jaay ko comme aw ma kayitu juddu wala ku ma amee ku ma dimbali ma am kayitu juddu ma am karante ma mën a dem liggéeyi bëgg naa lool tamit trop ndax su ma demoon liggéeyi rek xëy na lépp dinaa ko bàyyi na sax balaa école di tijji yàlla suturaal ma am kayitu juddu ak karante ko defee ma mën a dugal sama doom yi bu ma amee liggéey dugal leen école ba ngoon lekk ak naan di ko fa def ma dem liggéeyi bëgg bañu ma loolu mais tey ji bu ma amee sama doom yi mënuñu lekk mënuñu naan tant que jaayuma sama bopp sama doom bu ma dem ñu laaj ma kayit bu am ngee tuuti ñu dàq ko te ko wax sa problème mu xamal la xas la caaga ji ngeen di wax na ci biir kër yi am pagaay man mii teg nañ ma dil joxe sama numéro kooku ma jox sama ndeke ku ñu jox sama numéro policier la du dil sax na kooku dafa bëggoon ma am dara rek mu boole ma ak bi mais waxuma am dootoni la ba mu wax dégg nag kooku policier bi ñëw fay ma lu baaxul ma ne ko déedéet loolu baaxul mu insiste ma bañ policier bi bàyyi ba gudd mu jël beneen numéro woo ma ci wax ak man ba juboo ma takkal ko sama kër ba mu ñëw mu mën a tema yóbbu bis boobu sama doom yi di nelaw dama rus ba ma demee ñuy wax ak wax ma expliqué leen li ma koy def may négocier di négocier ñoom di négocier ñoom ba ma wàcc ci ma woo borom bi bu ma dendal bu ma dëkkal koñ bax mu abal ma vingt mille ma jox ma ma sama doom yi yeew maa ngi ñibbi ay ko envoyé ba ma ñibbee vingt mille yooyu damaa jaayaat sama bopp fayaat vingt mille yooyu ñaari fan ndax damaa xëy am ay nit ma jël jël jël jël am ñetti junni ma jox borom bitik bi dix mille te cinq mille di ci lekk di ci naan xëyaat defaat noonu la même chose amaat ma fu mottali borom bitik bi daal di kii lekk ak sama doom boobu ba tey nag maa ngi ci ñaari at waaye dama ko bëgg a bàyyi. ku ma dimbali nag man liggéey laa bëgg wala ku ma dimbali utal ma ay kayit ma liggéey wala ku ma dimbali ma am ci lu ma jàpp di ci di jaayantu. moo mën a yor samay doom ma bàyyi di balaa ma cee gën a rondé ndax sama doomu ndaw bi bett na ma te ku mag ki bis ma ci bettee gàcce dina ma rey moo tax ma ne naa ñëw wax ko fii nga xam ne solution dina fi am ñu dimbali ma ci balaa ma cee yàgg su ma koy def day mel ni sama boutique lañu dagg neexuma ma benn pexe tey du kenn ku xam du ndey du bàyyi du kenn ko xam waaw ku dul client ay fii ñëw ci man rawatina bu ma jaayee a bopp ba teg ñuy lekk sama xel dafay dafay naqari sama xol di naqari nu ma ci dara léegi Mohamed. Mhm. chaque jour mën na liggéey minimum vingt cinq mille. Mhm. chaque jour. pourquoi réaliser wu ci dara ak ñàkkum këyitam fan la jógee da koy tontu ci deuxième élément bi. ñu déglu. assuré ma ci dara parce que daan naa ci jaayantu daan naa ci jaayantu mais boo jaayee xaas ba xam nga rek dafa mu du journée cinq mille de day ëpp cinq mille parce que nga am léeg cinq clients ci jour bi vingt cinq mille liñ ci lekk liñ ci dara def sa compte bu weer bi dee nga mën a fay luwaas kon ëpp na journée cinq mille léeg-léeg nga am vingt cinq mille léeg damay génn waaw su may génn na dama leen di ci biir néeg bi dégg nga utal leen fii dama leen utal benn ñànkat téléphone ñu si jeex su may génn ba pare maa leen fayal arab tamit ñuy jàngi arab su may génn nii tombeeg dix heures jot damay xaar ba ñu génn ma defal leen ñu ndékki ba pare man leen dem biir ngeen toog ma ma dem feete ñëw su may ñëw indil leen wala mango wala dara su may dem denc ceg ma ko nekk fi bu waree gontu dama di woo ci ñànk téléphone ba dama leen di woo téléphone man leen acca dama leen jënd añ jëlal mille cinq nga dem garage clando nga dem jënd añ bu ngeen ñëwee ngeen añ desal ma dégg nga mu ne foo nekk yaa ngi ñëw man leen leen dinaa ñëw mu ko sangal sangal sa rakk bu trois naa leen woo ngeen dem jàngi fu ma mënti nekk bu trois heures jotee dama leen di woo téléphone na leen dem leen jàngi mais bëccëg bi dinaa profité nax leen dem doxe sama soxla daal di ñëw réagir ma ci dara nag parce que boo ci commencé jaay dama ciy commencé jaay mais jaay dangay sax perte parce que doo jaayee dafa mel ni ngelaw li nga ci bëgg a sox faj say soxla doo ko ci mën a faj ba ma bettee damaa rus fekkee góor sama kaw ma dafa tiit ba taxaw moom xale bi parce sama téléphone la ma doon àbb te bu ma leen waxee génn leen dem toog fële ci biti du bëgg a tëj bunt bi ci seen kanam ñu may gis xam nga damay delloo bunt bi mu mel ni rien damaa toog nii di waxtaan ak ndaw waa ji laa leen def léegi nag ku ndaw ki ñëw di ma àbb sama téléphone ndax mag ji abalu ko téléphone beneen bi mu ñëwee ba taxaw xale bi ba ma juddoo ba tey ba ñi ma toll ba sëy ba tas ma këyit sama yaay nee na la sama na sama yaay lañ ñoom nag dañoo séparé wu loolu fekkuma fi man xaw ma dañoo ma na ci wax lu sori mais xam naa ne daal fekk ba ma xàmmee ba tey gisuma leen ñuy ànd sama yaay la sama papa nee sama yaay la sama yaay nag barki démb lu ma mujjoon a vocal dafa ne lu ma mujjoon a wax dafa ma ne waaw sa papa ndeke daa utoon foo këyit waaw nangam nangam ma ko léegi man ba kii laa juddoo fépp fu ñu ma wax dem naa fa Grand Dakar Euh, Abbas Ndao mairie Abbas Ndao fu ne fu ñu ma takkal ma dem fu ñu ne musuma am kayit dégg si laa wax nag sama yaay keroog ba jote naa ak moom sax moo ma juddoo ba tey aw ma kayit judd ba ni ma toll nii aw ma kayit fu bu ma demee dañ naa sa photocopie candidat liggéey quarante li ma nekk moo tax may jooy ak kayitu judd bëggatuma ko ñaan naa yàlla loolu bëggatuma mu continuer parce que su may jaay sama bopp dinaa am xaalis bi kenn mën ko denc ku la wax na cagatu denc day fen ku la cagatu na am na banque xaalis wala compte day wax lu neex man nag dëgg laa lay wax te tax aw ma moyen jël jàng ndax chaque weer nga war a fayeeku chaque jour comme nooy dundalee sa doom seeni fay arab lépp maa ngi koy nga su may fay arab bi sama xol bi day jeex parce que dama naan lu tax may fay xaasu alxuraan ma fay ca xaasu su ma demee ba war a jox samay doom tamit suñuy lekk li ma jaay sama bopp laa jox samay doom ñuy lekk dama waroon solution bu ma waroon def du ndey ma xamal du kenn xam ne xamal na ma lii tey waaw du xarit du dara moo tax utuma xarit utuma kenn damaa sama bopp ndax léeg-léeg nga am gan wala nit woo la ci yenn milieu moo tax moo tax damay obligé du ma am kenn damay yéen toog sama néeg sama doom bi jàngee arab wàcc fekk ma fi su ma amee rendez-vous dem doxi ko ñëwaat Ndiaye ba tey ñi mën nañ leen de. bàyyi ko mu daaneel wax ci jeexagul de. ñu xam naa fu ma juddoo xam naa fu ma juddoo bu baax ndax sama yaay nee na hôpital kii dafa juddoo Yoff hôpital Yoff tam doon fa dem fekk ba ma demee Grand Dakar expliqué la sama problème yëpp ci mairie bi daf ma ne fexeel nga am certificat de caution sa yaay. demal hôpital bi nga juddoo mu def couchement bi sa yaay yaay daat ma wax heure bi date beeg yëpp ma dem chaque jour ñu ne dañuy wër registre bi 1989 bi chaque jour dañ koy dañ koy wër dañ koy ñu dem 1988 tamit ñu wër wër wër gisul waa ji dafa mujj dem ba dema santage su ma demee mu dugal ma ci bureau di lam bi samay weer ak dama def kenn xamut mujj mu dem ba may invité këram naa ma dinaa taxaw ci kayit yi am accouchement donne de naissance affaire yooyu mais dem na ba mujj mu dematuma fa sax waa ji daf may invité benn ma sax nu e may invité e na damay jaay sama bopp waaye damay bañ mu tëddee ma ba pare te duma defal këyit ma arrêté waat foofu sama papa doomi ñu ngi fi kooku mu ko déggee wala mu ko déggee te yàgg ay at sax damay toog ay at du ma ko dégg barki dee ma ñëw yëkkati jox ma li nga xam ne danga koy forcer sa bopp di ko da ciy am bànneex def lu ko neex ndax su may kii damay forcer sama xol def du ma lekk du ma naan léeg-léeg nga tase ku tilim laay ba xeeñ nga bëgg loolu xaru nga nga mel boo ma gisee manqué wu ma dara yàlla bind na ma ma war a mel mel naa ñëpp lu ma mel ku ma romb danga naan kii day liggéey wala am na gule maa ngi soo wax sama problème ko ma woon wax kenn il faut ma wax li nekk man ma xool ku ma a dimbali te tey su ma sañoon ma am jëkkër ji nga xam ne bu xëyee dina yëkkati deux mille am sax kenn bañ laa doo dugg ci ñàkk fayda yi chaque jour ma bëgg koo bàyyi ko lu yomb la mais da ngay dem wax nit sa problème xam lu ngeen di ko xalaatee boobu fanaan ak yow soxla laa faje doo am kenn kenn kenn kenn xool sama kayit sama problème kayit fu mu jaaru amul fu mu jaaru même Thiès def naa fa demande kayit waa ñaari yoon te kayit yi génn tëddee na ñaari yoon saa yi ma ko wooyee léegi day sonné sax tuduma jar moo taxoon na kii daal man lii yoof man lànk na du ma dem rendez-vous am su ma tëddee nag te duñ ma defaral sa këy da ngay tëdd ki nga xam ne waaye tilim bu muy tilim du sa morom du sa genre xale yu ndaw jëlee sax nga dox taseeg ñoom nga rus te duma genre boobu surtout maa suñu garage kalandoo yi xaj boobu yëpp te dunaa ñoom bilaay parce que kenn moo ko yoroon sama numéro jox ko ci ay chauffeur chauffeur ay xale yu ndaw billaay kilim xëñ ku ma ñàkk nga xam ne booy tëdd nga dangay gëmm tas say bakkan mais nooy def pour say doom lekk après nga toogaat mu metti trop nga toogaat di ko defaat say doom bu wee ba dee nga fay araab bu bon bi téere koy jënd ci xaalis bu bon bi bu sa doom feebaree nga faj leen ci xaalis bu bon bi bu weer bi dee nga génnee ci xaalis bu bon bi fay ci sa néeg léeg-léeg nga am ci infection fan amoon naa ci infection la ma fajoo mën na juróomi junni pikiir yi rek bul xam ne mu toll comprimé yare sa kanam ak yi ngay naan yooyu bul xam ne mu toll tam même dangay am góom bi noonu de mais il nga séq góor gëmmati muñ métit bi ndax lan bëgg say doom lekk wala nga am luñ naan ndax li nga yor matul di di nga defaat noonu pour nga mën a mottali say ordonnance wala nga euh, jeexal tamit yoroon li nga yoroon nga jëndee ko ordonnance yi ndax doo a toog benn même boo feebaree sax doo mën toog ba wér waaw kayit yi moom dama ci am santage ba sonn moom moo tax aw ma kayit mu mujj na toog continuer ci jaay sama bopp si doon dañ lay tëddee sax li jëntal kon sama kaa du egsi fii ni ngay fayee junni nii wala ñaari junni kon nga fa tëdd ak moom mu defaral sa kayit nga génn ci waat dem liggéeyi mais su ma yàlla suturaaloon bu ma amul kayit tamit yàlla dimbali ma ku ma investir benn place ma dafa xëy di fa dem su may xëy yóbbu samay doom su ma xëyee far fa ñaar dërëm ñetti dërëm sax bëgg na Hmm? ah waaw. doy na torop sax. torop torop sax. après gis nga nit ku nekk ci benn affaire. Hmm. ñëw di ko wax. Hmm. bëgg ko ci dimbali. lim nekk neexu ko. abaa man dafa bari yu ma ci yu ma ci yu ma ci interpellé. xalaatuma ko yedd nag. tey li mu bëgg nii tey bu fekkoon ma téye ko. dama koy jël jox ko. dama koy jël jox ko parce que dafee yaakaar yaakaar. beneen bi ci topp mooy dem ba sës moo tax mu wax ko te gis nga nit bu lay nettali histoire nga yàgg dégg histoire ci ngay xam ndax kii mi ngi wax dëgg wala waxul dëgg. Mhm. yi ci nekk yépp wax na ko. Mhm. muy loo xamante ne ji luñ mën a teg baaraam la. damay séq xale yu ndaw dañuy ñëw je le fais malgré moi yooyu yépp expliqué na ko euh, le problème est beaucoup plus profond. sama mhm. gis-gis. parce que mu amul kayit. bokk na ci li indi situation bi yépp. xam ngeen ne ay doomam mënuñu am kayit. bien sûr. que pour nga am doom dem déclarer ji ko boo demee fa nga koy déclarer dañu lay laaj. identité ndeyam ak mhm. identité baayam. Mhm. moom amu ko. Mhm. kon booy fan la ñuy jëlee kayit muy benn. ñaareel ba mooy réew mi dañuy dañuy dañuy dañuy rey suñu bopp ci di informer ci loo xamante ne ji benn partie nit ñi rek la amal importance. mais ñiy dund te amuñuy kayit. te war a mën a ami kayit te loi prévoir ñuy am ay kayit. ba léegi xamuñu fu ñu war a jaar. xam nga femme bii di doomu Sénégal dëkk fii am lu mën a prouver ci réew mi la juddoo ndayam nekk fi bàyyam nekk fi bu tey buñ ko tegaloon audience foraine yi fu mu mën a dem nan lay doxalee informer ko day day ami kay lu gaaw lay doon ci moom mm, si mais xamuñu ko parce que ñun li ñu war a wax duñu ko wax bien sûr ñun suñ àdduna yépp politique la wax ju ñaaw la xastante la weerante la alors que ñii ñi ngi ci suñ biir di dund lii laaj ñu leen taxaw beneen bi sopp mooy lim njëkk a wax nee na Euh, góor day ñëw ci man bëgguma tëj bunt bi. pour xale yi pour xale yi mu xam ne dama tëjoo góor mais fi nga xamee ne góor a bëgg lu bon bon ci ñi ma ko war a wax. Hmm. nan nga mën a duggee ci kër généralement fa ñuy dëkk sax na la ko yàlla nëbb. Hmm. daanaka mook sama kër a yam hmm. nga dugg ci biir fekk fa ay xale toog. nga ànd ak seen yaay dugg ci néeg bi battre campagne ba sa xol sedd génnaat. rombaat rombaat xale te yow boo amuti jarbaat am ngay doom. boo amati doom am ngay rakk. Mm. te xam nga ne mbëggeel dugal la foofu. nga génn fi may jeexalee mooy. Mm. góor ñi kuñ ci dénkati jabar. Mm. na nga muñ ba fa sa muñukaay yem. nga commencé muñ ngir moytu lii. jigéen ñi ku ci nekk ci sëy lu mu metti metti metti na nga muñ ba fa sa muñukaay yem nga commencé waat muñ parce que loolu moo andi lii après mariage bi xaw ma lu mu fa daj de. Mm-hmm. xaw ma lu mu fa daj de en plus say aussi wax nañu bakkan la boo waree mm-hmm. faatu day faatu. Mm-hmm. mais après mariage bi dund na loo xamante ne ji moi je suis sûr que ni dund koon biir këram. sa waa daf ma interpellé léegi mu ne ma. kii amu leen bàyyi ko tant que jóge wu ci lu mu nekk. muy monsieur le maire Ndoye Bane ban ban. parce que xam daan nañu traité fi ay cas yu mel nii. ñu ci bëri am na ñoo xamante ni. Euh, am na ñoo xam moo leen may sax moo leen may sax. am suivi moom la ci man. lii nii lii ngeen di wax nii muy yow Mouhamed muy Aba muy Ndoye Bane sas ngeen ma ko te man kii. bu ma ko tamit nañ ko tamit a jaar ba am. ay kayit waaw surtout loolu après ñu soog a pare Ndiaye dafa am loo wax ci xale bu góor ndeysaan au temps dafa am loo wax ci góor dafa bon man am na lu ma ci xam nga li dafa xaw sensible mm-hmm. mënu ma ci wax leen ñu naan Abbas soit sérieux mais wax nga dara ci xale bu góor nooy mën a fekkee nit ak ay doomam ñëpp toog nga romb ay doomam dugg battre campagne après génn xamoo ko bëgg falu hmm. boo bëggee falu sa xel njaay taw pouvoir ba ngay maa ngi dégg Serigne Mbacke Ndiaye di ko di ko félicité ay distinction yu ñu ko def ndax jéego yu muy def ci wolof Anna Rocha dañu fàtte ne goro ren Marie fay la aussi moom alal l'état loolu la ñuy fàtte. Ndiaye anam yi du moo fi waxoon. Ah, ah. loolu yu njëkkee la ba muy jàngal la <laughs>